Euh, jërëjëf kon maa ngi tolloon ci wax yi euh, Mouhamadul Fadil ibn Ahmad mun dalilul Yanqoob yi ci dégg gi sëñ bi dégg arab ak ni mu leen jommale ñoom ba mu koy wax dafa wax ne ahmada bamba yaa aqa taxarubi afa yaxilu laka zulmul arabi bi ax si naxwihim wa ax si adabi wa ax si juudihim bi xeyri wadabi dana ko yow ndax yow dana yell ci yow sëñ bi yow ngay tooñ araab yi nag ci jël seen naxu bi gën leen koo dégg moom jël seen adab dàq leen ko bool ak seen tab geeg yëpp yaa leen ko gën a def maanaam da ñëw fekk yin gënoon a fonk gën koo rëy la nga jël ko yow yow sëriñ bi loolu li muy wane rek mooy euh, fi teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak buy wax jëm ci moom ni mu koy tagge looy it yemu ca mu bokk ca ba lépp lu mu amit da koy joxewaat moom sëriñ bi xam ngeen ne tagg gi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi waxtu wu nekk daf koy jural ay ay pay aki kawe yu dul jeex ndax ba muy wax ne anta sabili wal anis lii xutta faaxel maxis bi xidmatil maaxi raxis mu kay si bil malhimi xam ne wammatal na ko la gën a kawe ci cër yi te gën a rëy tam amee ko ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye nag bu eggee ci di tagg nu muy def nga xam ne moom sant yàlla borom bi subhanahu wa la jublu ci loola ida katabtu fariha al muzammilu wan qaada li min al jamili amalu nga xam ne bu may bu may bind bu ma sëppee di bind yonent bi jëkk a kon bég gi ñuy bég day fekk yonent bi sallallahu alayhi a bég ilaya rabbi salabal lisaana wa fuxtu fil matxi nabi xasaana xam ne sama borom wammatal na ma lisaanul arab te ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam it ci la euh, jéggee ba kawe xasaan lool kon wane na aw doxin woo xam ne euh, jàngale na ko waaye kitaabati li dil wara ahabbu min xatti gayri wali man yuhib nee na sama mbind mi moo gënal fa yàlla ak yonente bi meneen mbind loolu moom anaana li fi xatti ma lam yakun wala yakunu xaaliqi li mumkini nee na ci mbind mi loo xam ne kenn musu ko am te kenn duutu ko am muy tagg mi tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam tasilu lil ujur wa sabaabu fil xatti wa sawaabu nee na pay yépp day agsi ci man ci tag gi may tag yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba yegg ci bi xidmati nabi sabqa wa qaada lillaahu al wa abwaxa dëgg-dëgg daal làmboo naa ak jiitu ci tagg gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ida katabtu ibtasamnu shafaa wa farra iblisu bi sirrin yadfaa saa yi may bind yonente bi wa sallam bég ga muy day muuñ waaye iblis moom day day daw kon tagg gi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko andil melawu rëy woowu mu ne nag euh, tagg gi muy tagg ak liggéey bi muy liggéeyal yonent bi yëpp dafa egg egg na nga xam ne liggéey bu sell la bu egg ci yonent bi sallallahu alayhi waaye it ci tagg gi ak julli gi ci laa rusloo jees yi ak xeej yi nga xam ne amul lu mu leen di moom yorutoon dara lu dul xalimaak daam xalima daal gi mooy kënoom mooy léppam mooy jàmmaarloog nasaraan bi yépp defe naa bi muy dem ci géej gi bu fekkee yor na lenn luy nuru ñaw ka saatu lay doon soo xam ne xalimaam la ci sot waaye lu dul lool rek Abdoulaye Salim Ibnul Hanbali wax na ko ca xasidaam googee fa kam xurbatin ga ci tagg sëñ bi wax na ne garibun la daa jundil ida wa silaahuhu midaadun wa aqlaamun turayasu bi shukri xalimaag daa rek la yoroon te xalimaag yoroon nag moo mujj nekk léppam loo xam ne mooy ay ay gànnaayam mu ne it biir tagg yooyu muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te may ko ngëneel yu rëy yooyu ba tax mu mu jiitu ci bépp jëf joo xam ne doon na ko jëf jëmee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayoon na ko euh, mu dem ba mbooleem ñi nga xam ne dafa jamonoonteeg ñoom ci bannu Israël te ñu ne ca safaan ba ba leen sun kër yi leen suñ borom waroon a dëkkee mu jox ko sëriñ bi sëriñ bi joxaat leen ko addiye nga loolu am mbindam la aataytu sahbahu manazil al ida fi jannati li ihmat aman hada li jaada rabbi bil manasili lada taxarubi mutayaban lil xalada inni jaaltuha hadaya li sihab raddi yaanu man kafaani bi sihab loolu kon jëfam juréy yóbbu na ko ca dayoo ba gën a kawe waaye lu mu ci amit da koy joxaat yonent bi sallallahu alayhi wa loolu it ci jëme gi koy jëme ci yonent bi sallallahu alayhi tagg gi mu koy tagg loolaa tax kenn ci ñi yàlla di jox ab gis-gis waxtu nekk dañuy nangu ne moom da raw na gaañi ci lépp lu mën a doon mu ne noonu ma koy taggee nag noonu laa nekkee it di jànge alxuraan noona ndax nee na ku bëgg yonent bi da nga koy bëggal ku bëgg yonent bi da koy bëggal ay saxaabaam ku bëgg yonent bi dangay bëgg waa këram moo tax ñëpp yonent bi salaahu salaam loolu war nañ ko roy ci sëñ Tuuba am sëñ Tuuba boo ko bëggee da ngay bëggub dëkkam bëggi dëkkam bëgg njabootam bëggi sëtam bëggi seexam bëggi dongaam bëggi mbindam te bañ di ko tànnal sëñ Tuubaa mooy sàmm bi sàmm boo ne ko su jur gi daa yooyu mu mere la ginnaaw defar gi ci sëñ bi la dañ ko bàyyi ak njaboot gi te bàyyi discuter yi critiquer yi ndax yow bu doon yow doo ko man loolu it mat naa bàyyi xel ah, ah, waaw waaw ne bari na kuy jéem a ŋàññi doxiinu gaañi mënta rek la këram kon buñ ko bàyyoon yoon wi ko lijjanti nan nan nan bàyyee sëñ beeg yëf rek ginnaaw moom man lakkaru juwaay maa jumuwaay bi xayri juwaay wala xatoo jofal si naa ruur ruurle wu ma réerle wu ma te regle naa loolu nag ku mënta sàmme noonu doo ruurle doo réerle da ngay ku mënta sàmme noonu da ngay bàyyi moom mi mën a sàmm nga sàmmle ko boo mënee nag di walise ka dàq ñu xam ne ci jur gi nga nekk ak la ci waaye nag fet di jur moom di yóbbu sañoo mu ne kon noonu la mel moo tax kon da bëgg alxuraan bëgg léppam kon dañoo war a roy sëñ bi ci ci noonu mu mel ci bëgg njaboot gi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ñëppam mu ne it liggéey boobu mu ko doon tàgg la ko jural bi xidmatil muxtaari surtout jaara yi muqitin fihi lan ujaara léegi mujj naa dëkkaale ci ak yàlla nga xam ne may ma dëkkaale ci ak sama borom bi xidmatil muxtaari surtout bushra lil anbiya wa rusuli ahli bushra mujj naa léegi nekk mbégteem yonent yëpp ma doon seen mbégte bi xidmatil muxtaari waddani sihaab ma al malayka turon bi sihaabi nga xam léegi malaaka yi dañ maa bëgg waaye yàgg naa ci euh, jëmmi saxaaba yi ñoom ñëpp dañ ma bëgg ak euh, ak ak yonent yi te bëgg gim leen bëggoon loolu moo ko may mu egg foofa mu waxal ko boppam nag sañ koo wax ne katabtu sa taxaddusi bi naam id waajibun fi sharci shukrul munami sëñ Tuubaa nee na man damaa bind di wax xéewal yi ma yàlla defal daana na war na nag ci char ci charia mooy sant aji ki la xéewale muy ku la jox xéewal nga sant ko xultu wa xas di taxaddusu bi ma lii xaadahu wala yuri ni ni xama li ma jublu tey nag mooy wax xéewal yi ma sama borom defal ci loolu aqulu sa taxaddusin bi neam wala asalu xubula xilami baadara li jasaau baaqin li doxra maxtaara li way sa xawli bi faqri la ma ci jublu wax ko it nee na jublu ma ko puukare woo ko waaye dama koy wax rek ngir li ma ko yàlla defal te ku yàlla wa amma bi ni'mati rabbika fa xadis kon nit ki sañ naa wax loolu mu wax nag ne euh, raafaxtu fi xidmati tawfiq xaaliqina al mulhim al xayr maahil jahli wal alam tawfiq da laa dajeel ci liggéey bi ma doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye liggéey bi nag benn laa ko liggéeyal boo xam ne doo amum ñaareel faraxtuhu bi xidami la saaniya laha min al xidami laysat kon liggéeyal naa xam ne euh, Euh, du am ñaareel madaxtuhu fi sirri wal jihaar bi muxjil buxuuri wal anhaar nee na tagg naa ko ci li ak ci feeñ tagg yoo xam ne rusuloo na géej yi ak dex yi madaxtuhu muddata awaan bi la richin wa xidmati bihi taqabala tagg naa ko dirub ay at yoo amul benn rax koo juma ko waaye nag sama liggéey yàlla nangu na ko loolu kon wane na ko melokaan woowu ci gi mu ko doon tagg waxtu wu nekk lu mbir rëy rëy du tee bu waree tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam day jog di ko tagg moo tax Cheikh Ibrahima Diop almachar nee na woon wa kasbuhu sarmadan tawxidu xaaliqihi wa matnu muxtaari xayril bariyati nee na sëñ Tuubaa daal benn càkkutif la am mooy wéetal yàlla ak tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, tagg yooyu mu doon tagg it euh, ci jëmee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa waxtu wu nekk nee na loolu moo ko duyal ngëneel yëpp ba daje fi moom kon day mel ni sëriñ bi moom amuloon genn jublu amuloon genn bëgg lu may yonente bi sallallahu alayhi wa fonk ko fonk ay saxaabaam amuloon dara lu muy desal ci waxtu wu nekk muy ay guddiyam wala muy ay bëccëgam am na ci mag ñi ku ñuy wax euh, sëñ Mamar Sey bun Xasan bun Abdullahi ñu koy wax nimra su njàmbur euh, ba dafa am lu mu doon tagge sëñ bi ba koy tagg dafa wax ne saraftu humumi lil qadimi malaadina malaadul wara turran la dal kurbi wal xashi huwa al qutbu wal miqyaasu man raama xafdahu ila wa wal xusulaani yufsahu bila bushar nee na yit yëkkati naa sama yitte jëmee ko sëñ bi nga xam ne mooy suñu wéeruwaay mooy ki nga xam ne moo ñuy muccal ci bu jafee ak bu mettee nee na mooy ki xam ne ku sàkku ak suufeel ko gotti ko nee na toroxte ak perte nga rek moom ngay amaale foo mën a jëm kon fa akrim bi cheykhan taqiyan wa nasiha nasihatu amman an minal biidi wal xumri nee na mooy ki nga xam ne eh, ay ay ndénkaa mooy ko ragal yàlla ku sell ki nga xam ne ay ndénkaaneem nee na matale na nit ñu weex ñeeg ñëpp waaye laxat xaasa sabqal kulli muskaana yaafia wa an naa nafal jahla mal faqri wal xusr nee na jiitu na ñëpp maanaam sëñ Tuubaa dafa jiitu ñëpp mu ne nag kon yéen ñi nga xam ne yéen a ami xewal alaa yaa zabil albaab luusu bihi maa tanaaloo mun a daarani bil xayri wa doxali yéen ñi am xel te dufoo leen ñëw leen wéeru ci moom da am li ngeen di sàkku tey da ngeen am li ngeen di sàkku ëllëg te loolu feeñ na ci kenn ku ne daana ñëw fi moom mën a bind mën a wax waaye boo ñëwee ci moom euh, na muy waxee dana la jommal defe naa euh, mag ñi ko daroon rek doy na ci misaal tey boo xoolee ku mel ni Sëriñ Ahmadou Diop Paxa sultaanul aarifin wa maxrafatu xaarifin defe naa ku ku mën a ku mën a ku mën a way la koo xam ne bu dee bind rek jafe na cee jot waaye bu lay misaal sëñ Touba da wax ne kooku daal boo ma ko doon laaj mel ni dafa am koy laaj ne kuy sëñ Touba mu ne wasaaka la in kunta saa ila rafiixu lil mamduux fi nuuni wa najmi man daal boo ma koy laaj mooy que dëkkaale ak yàlla tey tagg rasulullahi salaa sallam mel ni dañ koo laajaat waaw ba tey kan mooy sëñ Touba mu ne wasaaka la si xadi jaa wa diinu mayitun fa ahyaaw shaxsan fil amakini machia mooy ki dikk fekk diine dee mu dundal ko ba diine di dem boo ko bëggee xam ne dëgg nag sëñ Ahmadou Diaw Pakha wax ne mun jidu naa alfardu la si laa yu jumaaw wala yu sanna wa si wax yu jumaaw kama yu sanna mu ne mooy ku beru ki nga xam ne kenn du ko wutal morom maanaam sëñ Tuba ak dee su ko wax loolu dee su ko bokkoo dee su ko xaritoo dee su ko wutee ab àndandoo sëñ sëñ Tuba képp sëñ rek sëñ Tuba dong ndax koo ko tëkkalee rek nax nga ko waaw moo tax alfardu la si laa yu jumaaw wala yu sanna maanaam du doona ñaar diw sëñ bi déedéet doo tudd groupe boole ko ci si waaxu a ku dul moom yu jumaax ko may sànna manees na laa lim ci groupe manees naa tudd di teg la ca waaye sëñ bi moom ku ko tudd da koy bel mu ne kon moo tax euh, loolu sëñ Mamar Sey mi jàngale ci melokaan yooyu ak jëf yooyu moo tax mu wax ne kon liggéey bi mu doon liggéey nag xidmatu al alamina ahmada alayhi taslima karimin xumida farahatal xalb wa nafsi tayabat wa bi makaalihi li xayri dahabat kon nag waxtu wu nekk ak teey ak cant yàlla rek mooy dikk ci moom ci tagg gi mu doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ba yàlla fayee ko ci lii nga xam ne mboolem ñi dàqoon a tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu nañ ak mboolem ñi dàqoon a julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ak jiitoom gis nga genn xasidaam gooy jàng ci xasaa yi di rek bu dee gumi julli la boo doon jàng mafatihul bashiri doy na ca misaal nam ci jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye goo jël di ko jàngit noonu lay mel bu dee ci tagg yonent bi boo jàngee mawaahibu naafi' wala muqaddamatul amla wala nga jàng gis bu wala nga jàng ra'iya xoola tey ra'iya am na portale yu gàtt yu mu ci portale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne tey bu la koy misaal da lay wax yonent bi benn par benn xam nga bu nee la lil badri nuurun azimun yustanaaru bihi weer de moom am na ak leer bu génnee ba toll ci fukki fan ak ñeent badar danaan dàng ñu ne weer wee leer de mu ne waay lakin ida lam yakun li shamsi idhaaru nee na waaye leer ga leer nag bu jant génn mu ne kon koo fi gis mu di weer rasulullah bu ñëwee ab jant lay doon kon loolu bu la koy jàngal dala dala da lay misaal yakunu lil biiri maa un taaba mashrabuhu lakinahu min xalijil bahri aktar ab teen de moom lu mu bari bari ndox te neex na nga xam ne lu muy bari bari ay doq la ci biir géej nga xam ne lool da koy misaal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di la ko jàngal waaye xoola bi mu lay andil am ñaari jikkoy leweti yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne lahu min al xelmi maalam yahwihi jabalun laaxal asa fil baraya wa huwa sabar ni muy jàngale yonent bi ni mënoon a muñe nga xam ne boo ko tegee coona ak lu mu diis diis da koy muñ nee na daje na ak ay lor ci biir mbindeef yi waaye teewul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koy da muñ loo ko teg ci kawam rek mën koo muñ noonu mu koy joxe melokaan yooyu noonu la meloon ci sëñ Moussa Ka li mu naan wax naan euh, boo ko tuddee mu daal di ree giñ naa ne daaw nu soree xam lu la nee na boo masaa tudd yonent bi rek mu lee waaye moom it yonent bi bu sëñ bi masaa di bind mu tàmbali reer waaw léegi est ce que sax di su ko est ce que yàlla boroomam sax du ko reetaanloo ci bu sëñ bi bind di ko ci bégloo addaxaka rabbi rasulullah bi xatti mursi indallah waaye waaye mbind yi nag gis nga fi da cee yëmut sintu makaatiba taduuru abada mubbkiyatan man rabbahu lam yaabuda gis nga fi mu toll fekk xasida yi di jolli iblis di daw di yuuxu pëccet te du noppalu moo tax sëriñ Saliou mu baax ma daana wax ne salaaw ñu koy jàng fu seen kàddu yem iblis du faksi nga gis a aar mbindam rek li li mën a defar man koo aar euh, sëñ bi ay waxam noonu la mel ni ko yàlla tànn ci jëmmam mu wuteek ñëpp la ko tànn ci mbindam mu wuteeg lépp waaye daal monsieur su la gis te dee su gis ku bind lim toll ni lim bind léegi-léegi loolu nag léegi-léegi sëñ Tuba euh, euh, gis naa euh, un jour am ku bëgg suufee loolu tax mu ne mbind mën naa bëri waaye mën naa tuuti nangam sëñ Tuba dama bëgg ñu xàmmee ay bagage ak matériel sëñ Tuba yoriti bagage matériel la yor ku yori bagage nag mën naa am fu nay pot xojong xojong xojong boo ko dajalee ay bagage la tudd matériel nag nit mën na takk montre bu jar 100 millions bu ñëwee sa kër moo koy gën a seer oto bi mu yor montre bee koy gën a seer sëñ bi matériel dafa boole qualité ak quantité sëñ bi lim jóor daa bari te lim bari bari daa bat fi ne virgule mënee su ko dindi ci mbindum sëñ Tuubaa mënee su ko ca corrigé ba noppi noonu mu amee na yàlla nungoo léppam moom Sëriñ Tuubaa nga xam ne yàlla yàlla amul lum segg ci mbindum yëfi sëñ Tuubaa lu lu yàllay segg di jël lii di bàyyi amul lépp sëñ Touba suñ borom da koo nangu ba noppi yonent bi moom lañ doon tagg xanaa yonent bi moom moo bég moo moo bégale sëñ Touba ne ko yaa jiitu xam bu bushirtu anna rasulallahi qaddamani wa anna rabbi umri bin nabi qabila yonent bi moo bégale maa jiitu te loolu nag eh, yaa ku mën a wax ne jiitu naa Xasaan mën a wax ne jiitu naa Kaab nu Zuhayru tañ bañ a complexé sëñ Touba li mu wax nañ koy wax sans complex bañ koo tànn xam nga analyse moom jëmut ci mbirum sëñ Touba wax naa ko ba tey sëñ Touba du lu ñuy analyse sëñ Sultaan Jaw mii toog tey demutoon gànnaar sën Sultaan Jaw mii nekkutoon njëreem doonu demutoon Ceyeen te boo ko séenee si misay daal na ko jaw ginnaaw kan takkaloon garaat ba ku ca bokk yor ca garaat bi nag luñ koy calculer amu fi waaye bëgg koo calculer nag naan nañ ko waxee nii pour ñu comprendre ko peese ko ñàkk teggin yemu eggul ci wàññi waxi sëñ bi ngir kenn wala am foo koy waxee foo ko dul waxee amut fi ne tey bari na ku naan la fi nga teg sëñ bi ëpp na boo tooga doon woon ci kaw ñu ne da nga ñàkki teggi te sañ ñàkk a ci kaw kat du jëmmam sëñ bee tax kon nañuy bàyyi loolu xel bi toujours ci Serigne Touba Serigne Touba luñ ko waxal waxal na boppam lu ko ëpp te ko yàlla mayee ko gën a rëy li yàlla may Serigne Touba te feeñaluñ ko waxu ko moo gën a rëy nga xam ne kenn du ko xam nga xam ne lii xaadama raaba an xurrin xawaw ajaba gaa yi jiitu woon te am kawteef yi cël yu rëy lu kenn amul xoola Cheikh Ibrahima Diop almashari ba tey li tax ma di ci delluwaat dane ki gën a siiw ci kaw asamaan pays juróom-ñaar mooy sëñ Touba daan na mooy shérif bi gën a màgg daan na boo demee ca malawul axla sëñ Touba lañ fiy béggee shérifun shahirun fi samawati dikruhu wa fi malayil axla waxat kaana ahmada almashar yi kum doon cër bu bu mu am ci sëñ Touba ba tax mu sañ a taxaw wax loolu ak cër bi ko suñu borom jagleel mahmoud bun euh, baba bun mahmoud ad-daymani xanaa kon jàngkat yi ñoom ginnaaw nangu nañ ñaari baaba bu mahmoud addaymaani moo wax ne bi misli cheikh lam nasma lam nasma xadisa wala fi saalifi dahri qadimi nee na ku mel ni sëñ Tuubaa nopp mosu koo dégg ca ñëwey bees ñu ko ci mel ni sëñ Tuubaa amu daan na sax sayqul masayiqi ala al umumi min xaalisin min huwa min qadimi nee na sëriñ si mooy seen sëriñ ña bees ak ñi wéy ñëpp laa ci boole loolu ab mahamadou daymani wax ñi bind loolu wax ko sëñ Tuubaa boo nangoo ne sëñ man nangu ne raw dangay fexe ba sëñ Tuubaa pas-pas la sëñ Tuubaa yëg-yëg nu mu def rek mënuñu ko nee def waaye war nañoo jël suñ lépp jébbal ko Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa desewul dara jumlatu maali wal midaad wal xalam hadiyatun lil Mustafa babi ne am juttu lahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fi laxlan kon desewul dara ci li muy jébbal yonente bi alayhi salatu wasalaam kon nañ na la ñu sëñ Fallu waxoon rek nañ na ko nikk na ko nankatum na ko katiw na ko tarawlis dofub sëñ bi nag moo gën intellectuel feneel dofub sëñ bi tan soññu ñu luy dëgëral suñ pas-pas yi gis nga daaray tërbi yi ñoo koy dundal ñu ne suñuy doom santaane yi ñoo koy jëf liggéey bi nu na luy tax lu gën koo gëm nan nu koy wax te bañ ñëwut loo gam-gam leen daf arrasé wu noonu ndax ki ngay bëgg a nawlante doo yàgg ba nga woote ruuj ba mu dem doo wootey tool daaray tërbi yi bu dundee suñu doom yaa fa nekk bu ne woon tey jii sëñ bi daa soxlay bopp jumaa ja day xat ñi mën a mbëkk ci yoon wi fa la ñuy rayee seen bopp koo xam ne nag loo ko wax mu koy këlkin bokk te bari na kuy jéem a dagg rang Cheikh Abdou Samad ni n mel ko naqari am na ko waxalut ngir sëñ ko rang kenn tëkkutu batsam kenn joxu ko addiye kenn siyaariwu ko du woote ne ñëw mu bëgg a seet fedd lu mu jaar di dajjee ka taxawal ñooñu ne ku leen dégg dara du sot noonu nan lànk noonu noonu toppee nu war suñ diggante sëñ Tuubaa bu nun kenn ko fa dox sunu yoon te ku ci nun sëñ bi fekk na la ci béréb def la loo xam ne pexe mënu la ko may kon warmaal ko warmaal ba kër mën war waaye boo waxee ñu ne ay nit la ñoo ñëpp a yam ak dañ leen di exploité d'accord bi sëñ Tuubaa di xuus di dem ñëpp a sëñ Tuubaa moom daa teel a régler situation bépp ndax xam ngeen ne bi muy dem ci géej gi bu yóbbaale woon kenn yàlla xam na ne day opposé fee lay taxaw wet defuk beram na ñoo àndoon ci géej gi maa a ah moom mi dem ñëw ñaagal la rek ku ne beru sa ruq naan maa nangam ak nangam bu la yóbbaale woon nga dem ñëw da nga naan tam sax ñeme nga ne sa sëñ bi maa ko ko naroon loolu leeru ko parce que léegi la nga dégg li muy wax boo ko déggee da nga naan kii bu sëñ bi ñëwutoon it moom téewut baax na te billahi bi ñëwutoon wala la la Serigne Cheikh Thioro waxoon ne wallahi lawlaahu maata nas kullihimu ala tariqati iblisi la si sama ja te kookee sëñ Mor Anta Sali ko jur de ah, waaye eh, nañ nangu loolu te te ta te ne dann sëñ Tuubaa rek te dàq ko koo tudd mu am lu ko naqari bàyyee ko lam yor te tudd sëñ bi sëñ bi ay magam du jeex ñaata cheikh la mënoo ko lim dañuy wax 313 dem na 660 nangam cheikh yi nga xam ni ñu naan cheikh yi Daaru Xudoos ak mat na ñetti téeméeri cheikh ak nangam léegi ana yeneen seex yi ana bootal yi maam Thierno ñaata seex yi topp ci ginnaawam da ngay dem 80 nanga boo demee sëñ sëñ Babacar Ndiaye Thiargaan ñaata keneen keneen keneen mënoo lim seex yoon wi mënoo leen a ji ak dund mënta jeex waxtaane leen li sëñ Tuubaa bind murit bu ko am amut murit bu ko xam amut ku am yëpp amul ku xam yëpp amul kon nañ wax lim bind wax ñim defar ginnaaw koo tudd wax ko lam yor mu ne loolu ko tudd ko nga bàyyee ko ndax sëñ Tuubaa moom lu mu laal koy defar képp waaye doolu li ko wut yëfi kenn te mbubbum sëñ Tuubaa mi na ku yàlla bind te mbubbum koo sëñ moor Bassine si moo waxoon loolu sëñ Mor Bassine moo waxoon sëñ Mor sëñ Mor xëri si ne woon sama mbubb mii manto bi góor yàlla yi ko ma ko solal di sa waaye ba ma ko solal sëñ Tuubaa daa ngor yeelu am daa cëpp daa daa kon nag maa ngi sant ñëpp sëñ Abdou noo ngi lay sant ci lii nga def waxoon naa ko ci yoon wii danaa ko leeralaat ñàkk nga jot ni ñëpp dan naan Cheikh son yi bu ne sëñ Tuubaa mooy point silsile bi guddut amul fu ñu koy wiire amul fu ñu koy yàlla sëriñ Chouaïbou sëñ Touba te nee naa ku ne la am sëñ bi ngay doxee fii ne ñi ci amu dàll dàll walañ fonk ñi ci am kaala kaala gi nga ma takkal barki dem fa ma ko denc ak mbubb yi nga ma jox yëpp dama leen bagage yi dem la ku ma xam nga wàññi ko fi ma cappate ca jox la ndax morsob sëriñ Touba lu bokk ci ma bokkul ak leneen te teewul taalibe yi waxtu sëñ Elimane Touré mi léegi dañuy wax ma ne ko sëñ Abdou Samad de fii maa moom ñu toog di waxtaan ma ne ko li ci gën a neex nit ñi mooy seexlu wut taalibe yi saal bii mel macha allah nga xam ne président ku ko gën a kawe ku mën a doon suñu muntaxaa bu ñëwoon fi lay dal ñu dajale fi donga yi nga xam ne am na ñoo xam ne ban wàccee jotugunoo laalum ndox xëra leen fi indi yow faale ko loolu mooy bëgg sëñ Tuubaa kon nañ koy boole di ko ñaanal Cheikh Abdou Samad li mu bëgg yàlla na ko am li mu bëgg sëñ Tuubaa yàlla am li sëñ bi bëgg ci moom it yàlla na am ndax waxtu wu ne mu tànn aw nit dajale leen kilifa yaa ngi fi doon boroomi xam-xam te jot amul kon nañ ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko maa ngi balu ñëpp ak na ma ñëpp balaq wasalaamaaleykum wa rahmatulah di siyaare sëñ Amsatu Mbakke mi ak si léegi moom Cheikh Abdoul Ahad borom xuddaam sëñ Abdou Samad Cheikh Amsatu moom it yaa nu ko gën a xam waaye liñ ci jot a xam noonu ci taxawaay bii mooy waxtu wu ne mi ngi soññee bu déggee ku jëf lu baax mu woola na la waa góor bu déggee ab saay-saay solu daal nga xam ne du nopp lu guddi du nopp lu bëccëg waxtu wu ne mi ngi gëstu ñiy wax ci sëñ bi lu ñu wër wax kenn ku ci nekk mu nekk barki dama daf wax ne na maa ngi ci yàlla duma leen wor waxtu wu ne noo ngi ànd engagé ci Serigne Touba xamul guddi xamul bëccëg xamul suba xamul ngoon tey tay la bakkanam tay la alalam tay tay la ab juddoom lépp ngir jëfi Serigne Touba ji kon nag noo ngi koy seere ci si nga Serigne Amsatou Mbacké mi ci taxawaay bu réew gis nga xuddaamul xadim jëf juré ji muy jëf kàccoor yi ne ci bitti di wut lu ñuy wax waxtu wu ne ci ñoom lay xëy waxtu wu ne ci ñoom lay lay gont te ku nungu ànd ci ak moom waxtu yu may wax ak yow am na ñoo xam ne ñi ci ci lañ bokk ña nga daje ci ay jataay di réunion te lépp dara waralu ko lu mooy luy jagal mbir mi rek ndax li nga moom boo ko sàmmee moo la war boo ko sàmmutit moo la war kon noo ngi lay sant baax sëñ Hamsatu di la ñaanal di dolli di sant sëñ Abdou Samad bu baax a baax ak kilifa yu baax yi fi nekk yépp lu waaye dégg ci wax ji sëñ Mouhamad mii di coordonné loo ngi koy sant moom it bu baax a baax di ko ñaanal ci gi ak jotal gi non man nag dama di dof boo xam ne damaa mënta sensé ni may waxee toog ci kanam sëñ Abdou Samad ak sëñ Muntaxa dem ca barab bu yonente ba ca Madina ak lépp daama fi gën rek laa man man loolu laa xam daa ku bañ a dégg daama fi raw daama fi gën daama fi man ba ma woo ker këralu ma négocié ma képp képp lu ma seetu ma kum arrangé kum arrangé wul daama fi gën rek laa mën a wax waaw asalaamaaleykum wa